waaw ba tey ñu nekk ak l'homme bu école de lutte Balla Gaye numéro 2 mbër ñu ngi lay ziar di la bàyyi nga nuyoo présenté wu. waaw maa ngi ziar du nuyu waa Guédiawaye du nuy waa axlu làmb ñëpp di bëggee ñëpp du nuyu waa école de lutte Balla Gaye di nuyu kaw bu suuf ñu kenn du nuyu suñu champion suñu xalifa suñu xarit suñu doom ndey suñu lépp muy Balla Gaye numéro 2 di ko ñaanal ndam lu rëy ci combat bi mu demal incha allah rabbi waaw mbër ñu gis ni gëj nga tooyal sa xaftaan boobu ba léegi lan moo ko waral ak problème bi ci yow la wala bi ci yow la wala adversaire yi la. non problème bi du adversaire yi si man la woon rek maa nekkoon sama rukk rek waaw def naa ñaari sorti ma gëmloo ko yàlla nag ma nekk suruk bi rek nekkaat di xoolaat samay fët di defarawaat nekkaat sa école di kontaakaat di defarawaat rek di xool lu ma manqué ma defaraat ko pour su ma ñëwaatee mun a exploité waat sama doole incha allah. mu toll nii pare nga pour tooyal sa xaftaan wala yaa ngi ci ba léegi. non instant yii nii pare naa pare pare naa pour bëre ren incha allah. mën nañ xam ñaata séance ngay def chaque jour. non man moom dinaa def deux séances par jour léeg-léeg ma def trois séances par jour waaw mais sans dépasser climat bi rek léeg-léeg nga xëy dem géej boo fa jógee dem salle léeg-léeg nga ñëw ngoon ni contact mais en tout cas lu mën a xew suba lu ñu mënti liggéey moom ngoon gi fii la ñuy ñëw chaque ngoon ñooy fi contact ak boy yi ak gars yi jàppante waaw kafre bëre wéeru ñu bu jotee ñu ñibbi quoi chaque jour la ñuy def. instant yi ñen ñooy say potentiel adversaire ñoo xam te ne tey jàpp nga ni war nga mën a bëri ñoom say naataango ci gàttal xam nga si gàttal samay naataango daanaka mënu duma euh, a bëréw tey man ak Aline Mbaye Der jour combat naaru sogaas a bëre ba tey ji nag tur quoi man bañu kenn dawuma kenn kuñ ma jox ma bëre waaw 2015 ba léegi mën nañu loolu def na ab diir te nekk mbër dafa metti entraînement yi donc nekk na lu metti te aussi wàllu investissement mooy ci wàllu lekk beeg alimentation bi loolu yëpp yow nan nga dundee période boobu. loolu yëpp ñu ngi si maa ngi sama rukk nekk ak sama gars yi sama gars yi ba doon jàppale ba may bëre ba tey bàyyiwuñu Sow Cheikh Dégol gars yi Cheikh Fajor moo taala sama gars yi waa mafia ban bi gars yëpp at leen fa lay añee gars yi wuñ daal ba tey gars yi su ma sox ku ma sox sama soxla dama koy fajal. bon boo ma gisee sax dooma ne maa ngi ak gëj naa bëre yooyu quoi parce que damay nekk-nekk bi man taalibe Serigne Touba la su ma xëyee naan kafe sax damay sant waaw loolu moom loo xamante ne mënuñu ci ñàkk a wax c'est-à-dire récemment leen coow loo xamante ne déggoon ah, daal di daal coow li bëri ci trop waaw daal génn sax seedal la ni lom ah peut wuñ ko yu mel noonu waaw léegi yow lan ngay lan ngay tontu lan ngay wax ci loolu. non lu ma si wax bariwul parce que loolu maal attendi boo xam ne bon Daouda Seck def na ko ba dugal sama tur te ba mu ko defee bañ ma envoyé audio bi ma xëyee ma ko wooyee dafa ne ma bon maa ngi jégalu quoi nangam ma xam ne ñun tamit bon ay jurit lañu moom def na erreur nangu nañ def na erreur jégalu na te ñun ay taalibe lañ ku jégalu dañ lay jégal mais ku ma xam man xam maag Balla Gaye 2 xam maag Géejawaay xam ne man am na yoo xam ne doxuma si man dërëm ak million laa yemale. waaw noonu la demee nag quoi mais loolu moom la passé la passé la quoi lu suñu kanam lañ jëm nii mooy diggante combat Balla Gaye 2 Modou Lo le treize si kàttanu yàlla Balla Gaye yàlla may ko ndam quoi si loolu lañ nekk. waaw balaa ñu tàbbi ci combat Balla Gaye 2 ñu faroon ci yow béy ni jotoon ko dugal benn plainte est-ce que loolu am na wala amul. non loolu moom amul moom su yàlla dëgg rek la bëgg sama bàmmeel laa taxaw loolu amul moom. dugaluma plainte te musuma xalaat dugal plainte ndax nit moom loo deful doxoo si warul déranger ko waaw parce que ñun ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ waaw te ñooñu luñ daj ñun mënuñu kaa daj kon nag am na xam ne jarul sax nga si bàyyi xel ko univers rek laa dund quoi waaw noonu la demee